jëmale ci décret présidentiel bi jëm ci corps électoral bi yéenekaay bi di Le Quotidien dellu siwaat ci bàyyi gi ñu bàyyi Ousmane Sonko ak lieutenant bi di Bassirou Diomaye Faye la ñu jugee ca Cap Manuel mbooloo mu takku nag nekkoon ca di leen tertu fépp ci biir Ndakaaru nag pëccëxoo gi mel na tulleeg màlle ña ngay xam ne tey jii nag ab point de presse xam ne rek war nañ koo amal laataa ñoo soobu ci ab caravane Sud Quotidien di ko feelu ne bu neex la militant yi fanaanoo ginnaaw ay weer bi ñu leen bi moom Ousmane Sonko ak bras droit mujj dinañu leen a féexal démb démb ndakaaru dafa meloon ne làmb ju tas leader bu ex Pastef ak waayam ji di Bassirou Diomaye nag bi ñu leen bàyyee mbooloo mu takk moo leen escorté Sonko ak Diomaye nag génn nañ ci kaso bi libération na démb kay foo sànni mbattu mu takk muy mbokk xarit àndandoo walay militant ak responsable yi nag ñoom ñëpp a génn nag daal di accueillir libération bi ñu libéré kii di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay fa saasi nag moom Ousmane Sonko dafa daal di jiital kii di Bassirou Diomaye Faye ngir mu daal di door campagne am les yëglekaay ne Dakaaru guy feetu ni ki démb nag loolu la ñu gis ginnaaw ab mbégte moo xam ne rek moom la askan wi fanaanoo ndax li ñu bàyyi seenub idole muy góor di jigéen ñoom ñëpp a defub dànk nag génn ci mbedd ndakaaru yi daal di gunge convoi bi nga xam ne rek moo jógee ca Cap Manuel jëm cité kër góor gi yéenekaay bi ne dafa dribble militant yi nag ndax dafa bàyyi ba jomaay fay génn nag di amal campagne mu daal ànd ak Birame Souleye Diop jante ak Ousseynou Ly daal wàcc digg ndakaaru Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye libre en fin de compte loolee ëllëg yéenekaay bi di dellu siwaat ci ndakaarook melokaanam démb ci guddi fi mu toll nii nag amatul lenn lu ñu leen di toppee ci wàllu yoon yéenekaay bi ne lépp daat nañu koy faase Bassirou Diomaye fay di xamle ci biir yëglekaay bi ne daañu wéyal lii di combat bi Walf Quotidien xëy samp ab laaj ne Ousmane Sonko nag naka la fas yéene changé doon bi yër leen bi la yëglekaay Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye démb daat nañ leen di génnee ci kaso bi Vox Populi ne ab caravane bu gudd te yàgg guddeeg bi moom la ñu daal di fanaanoo ànd ak Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye Ndakaaru fees dell ak doomu aadama muy militant muy sympathisant ñoom ñëpp génn seeni kër naka daal di wutali ca Cap Manuel naka ngir gunge Ousmane Sonko ca këram nga ca si te kër góor gi yéene kaay bi ne dirub ñaari waxtu yoo xam ne rek Ousmane Sonko am na jafe-jafe ngir yegg ca këram àddu ci leneen loo xam ne rek Le Soleil yëgle kaay mi ngi ñu koy xamal ni ki tey ji nag mu jëm ci taxawaay gi ñu war a fas yéene taxawoo ñi nga xam ne rek dañuy dund ak lii di insuffisance rénale atum 2023 nag yombal nañu lu toll ci juróom téeméer ak ci ay patient lu toll ci junne ak juróomi téeméer fukk yeneen ci ay patient nag jamono ji nag ñu ngi xaar ñu war leen a taxaw réew mi people daal di séq ak waxtaan wu yaatu tey ji nag ak kii di Tafa Jara bi yéenekaay bi ne l'homme caché derrière l'artiste séq nag waxtaan wu am solo ak kii di Anna Thiaw tàggat yaram ca la ñuy àddu jëmale stade yëglekaay nag daal di àddu ci ligue des champions mu ne tirage au sort bi nag tey ji la ñu koy amal bu mi di jotee nag yéenekaay bi di samp laaj ne bu nekkoon City ak Real ñoo dem ci quart de finale yi sunu làmb àddu jëmale tey jii ci jongante yi nga xam ne rek ñu ngi koy waajal mu war a dox ci diggante Titan B52 ak Franc Eumeu Sène waa Thiès jeexalee yëglekaay yi ak la xew ca diwaan bu France mu di faatuk Samba Dior Diagne di ab sénégalais boo xam ne rek nee ñu police bu France moo ko sox juróomi bal mu daal di ñàkk bakkanam yëf yi nag mi ngi xew talaata ji ñu weesu bu ñu sukkandikoo ci libération nag moom sénégalais boobee nag mi ngi doon yeewoo ca Lille ginnaaw coow loo xam ne rek doxoon na ci digganteem ak ay colocataire am nag ca la ñu ko daal di fekk ca këram daal di koy sox ay bal bi ne parquet bu Lille jamono ji nag ma ngay dëggal mbir yi waaye àdduwul jëmale nag ci ñaata bal lañu ko tiiree moom Samba Diagne nag